bokku internet yu géejawaay info tay ñu ngi am mbégte ak kontaan mag ñu dajal nak benn soxna so xam ne allah du ma leen wax mom moy kan lolu incha allah mo moo ci delu ci ak euh, mom mu nek nak ku yalla may ci walu set set nak am nga noo xam dañuy mëne fi tu duñ mëne fële mom nak yalla da ko ci may ay jagle muy soxna Khady Sall mu jox ko mu présenter wax ma kan moy soxna Khady Sall mu dugg waxtaan bi ak assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu mag ak ndaw ak ñëpp kilifa diine kilifa aada di nuyu samay ñaari waajur sama waajur wu jigéen ak wu góor maa ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm di sant nag li ngi def ci man tette ma ba fii ma di leen sant di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi di santaat sama wasila sëriñ Touba di ziyaaraat sëñ Fàllu Mbàkke mi nga xam ni xadim sëñ Fàllu sax la ma ñu bari di woowee may santaat sëriñ Fàllu Mbàkke bu baax di sant njabootu sëriñ Tuubaa gépp di sant sëriñ Seex say Mbàkke sa pàppa ak sëñ Seexum sëñ Moodu Faata xarit sama ndijaay kull Mbàkke Mbàkke bàyyiwuma kenn ak kilifa diine yépp waa Tiwaawan waa maa ngi leen di ziar ndax Cenaba xalifa ba sama doom bàjjan la kon maa ngi ziar ñëpp bàyyiwuma kenn ak maam bu Kunta Njaasaan yàlla yokk leeram ak Pa Basiru Kunta maa ngi ziar ñëpp ak Sidi Lamine ñas ñoom ñépp ak sama doom yi dem bu yàggul fan yee dañoo amoon suñuy tuut tànk yu dem sama doomu mag yal na yàlla yokk leeram soxna sëy ak sama beneen doomu mag mbayang sàll sëñ fàllu yal na yàlla yokku leeram ak bërki démb muy góor a faal mu géejawaay magam ju jigéen muy far njaay di sama doomu nijaay yal na yàlla yokk seen leer te bàyyi fi ñu ci des ci barki sëñ Touba jërëjëf Ah, lima la ci wax nak man ba tay damay wat sëñ bi sama bop ci suñu borom parce que ay may ndax nit buy ñew du indi walé dara amul kuy judd walé dara kon lepp may suñu borom la man nak yalla def na lepp dama koy santewaat yalla ak sëñ fallu mi ma bëgg ci sama xol Yalla def na buma timé ndox wax la ci suma jakarlo ak yow wax la ci suma yoré yoree pitaaw yi wax man mi may wax ñun nag loolu ci suñu maam la ndax dama amoon sama maam joo xame dañ ko daan wax maam ma góoram sàll maam ma góoram sàll moomu aajo boo masaana indi ci moom aajo boo masaana indi ci moom bu la nee sumil say dàll mbaa nga dugg ci biir néegam aajo bi day faju kon lépp rekk ci samay kilifa la may santaat nag soxna xadi nag muy sëtu Lat Joor dëkk Kajoor dëkk Gol bi Jóob ak Njas Jóob ak Kuul ak Mérina Ndakaar ak may jóob ak xàndang ak kër maa dooki jóob koo koy soxna xadi di sëtu boobu sàll sama maam gede la jóge woon ñëw kajoor ñu dalal ko am naa maam maam moo xam mi ngi tudd maam ma góoram sàll dëkk xàbbaan ñu koy wax kër ma góoram sàll kooku waa këram dañoo jokk ci sëñ Saliou Mbàkke moo tax soxna xadi waa kër sëñ Tuubaa yépp la fu ma ni foofu la foofu la daaru mus si samay papa dëkk fa sant sàll muy ñoom Ibrahima Sàll seen maam ka ñu tudde sama papa Mor Sall ñu tudde ko Alaaji Mor Sall mu ndangu sal ba tey ma ci wat bokkat ak mam cierno Birahim Mbacke ndamal daru koo koy soxna Xadi fan la ma dikke señ bi dama la wax olof dama la ne yalla suñu borom moy maye te suñu borom la lu way man rek suñu borom la soxna Xadi bim nekké nekkee tank nek keur papam la ko man dama daan làqatu te ba tey loolu laa gëm ndax kenn mënul ko dul suñu boroom lépp suñu boroom la yàlla mayewul dara day dénkaane rek kon dénkaane bi na rafet ñu ngi ñaan suñu boroom képp ku sa aajo yàlla bu la soxna Xadi gis ku sa aajo nar a faju yàlla naa la gis ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke sëñ Touba. barke sëñ Fallou lool am na sëñ bi ndaxte nit ki yaa war a gën a xam sa bopp liñ lay wax bu dee dëgg la la nit ki di wax bu dee dëgg. boo dee dellu si xam nga boo doon dellu si xam nga man nag am na ñu ma xamoon soxna Xadi moom ñi ko xamoon bitim réew sax a ëpp am na ñu may dégg di ma xam ndax ci internet laay waxee am naat ñu ma xam fii defuma ko tamit lii laa ci dama ci dama koy forcé far force forcé wu ko lu ma ci suñu borom may sante naa ko ku yàlla indi sante naa ko lu ma si yàlla mayit sante naag ko maa ngi koy sante yàlla suñu borom ndax yàlla rek kay maye te kenn mënul ko dun suñu borom lépp suñu borom la. waaw waxoon naa ko de ba may wax ca bëre Balla Gaye bi newoon naa du yomb dina metti waaye ku jeexal jóg fi sëñ bi la ma waxoon rek laay waxaat sëñ bi yàllaay fal ku jeexal jóg fi barki sëñ Fallou ku jeexal rek jóg fi yàlla rek ay fal. Mhm. situation bi dama ne woon dina metti kon yàlla yal na ci def ndox bu sedd te yàlla def ci jàmm ci barke Sëñ Tuubaa ndax Sénégal ñoo bokk ndey noo bokk baay ndax lekk ñun rek ñoo koy bokk kon yàlla mi nga xam mooy borom jàmm yàlla mi nga xam mooy defar jàmm te kenn gisu ko te ma nga toog fa mu toog te xam na lépp lépp lu nit di wax danga koy wax rek di gis di wax waaye yàlla xam na lépp gis na lépp yàlla noppi na démb tey doo ko ñëw barke seigne fall dama sét yow bi say sét yu bari ci sarax bu upp ko da ngay def loolu nga wax ma benn bis ñu la te mom laaj la ci nga wax né sénégal bëru ay jafé jafé waye lepp ci sarax deug la lan nga mëna expliquer wa parce que seigne bi sénégal ñun ñëpp mi rawaan lañ sénégal buñ doone tay téméré nit fukka ci bon ñi ci dess ñëpp borom baax lañ buñu joggé pour def lu bon sax duñ ko man tayit boroomi rawan bu muccé ci bëtt ak meñ rek mucc ci lepp yal nañ la fal ciat sëñ bi sarax lu la amul man ñima xam ñi may dégg man sarax moy dëgg saraxay lepp té lu may defal sarax ci nit ñepp ak may dégg motax bu ñepp né soxna xadi ku mu waxal dina la wax perkal ah kay dina ko ci boole parce que li tax dina ko ci boole nañ ci boole nat suñu borom muy ña di ci hôpital ba té kenn ku né sëbbi sa ngi ñëw te kenn ku ne na xalaat sa bis yal nañu yàlla xiir ci lu baax may sóoraale nag ña tëdd ca hôpital bi jékki-jékki suñu borom ñëw moo tax ku may defal sarax dinaa ci boole saraxu perkaal ka ca hôpital Fann mag ma dégg perkaal waaw parce que sëñ bi loolu day yàlla moo ma ci xiiroon rek ma toog mu xiir ma ci depuis 2011 maa ngi koy def te dama cee gisul rëccu taal naa ci nit defar naa ci nit ndax dafa am bu ma koy def sax damay soxla sa tur ak sa tur waajur ñaanaa ci jullit lépp ndax ñoo bokk nday jokk baay sarax bu ko yemalee ci ki ko moom rek léeg sax bu ma ko yéexee defal nit sarax man ci sama bopp damay dem ci soxla ki ne woo ko ni ko maa ngi ñëw hôpital barki sëñ Fallou dem yóbbu ko su ma yóbbu nag du ma yóbbu juróom-ñaari ndax càngaayu benn nit la dama naan ku ma mënta jox benn piis wala njëgu ñaari pis, ñetti piis eau de javel saabu njàmpe parfum bi ñuy bu complété wu duma ko def ndax sëñ bi dama faa gis ñaari kaa taxaw naa hôpital femme bi am koy wax ak moom te wallaay kooku sax mënoon na jëf soxna ki ne waaye dama ni dareet ci taxe bi soxna ki ne ni ko bàyyi fàllu sëñ fàllu baa ngi yegsi na ma yemaat ci hôpital loo xam ni bu tout temps kam wacc liggey bima yegsee ma tombeeg mu nan soxna ci man dewuma percal soxna ci niko lol amul solo Dina la ko defaral bobu gisuma sax dama wacc buntu ba dox di dem léegi mu nan niko man mère yoruma dara defal mako ci caisse defal ma ci glace ma odo ko jël auto bu ndaw koku niko bu sobe seigne touba na la wutal auto muy soxna ki ne mang koy ñaanalat yalla soxna ne bu hôpital fan. bima mu def lolou ba mu koy defit ma ne ko soxna Kine nga defee ni lii hasard la mu ne ma bi laa yow soxna Xadi kenn gënu la bi waajooju demee may dem di dem ba ca déwén sa xaw ma ca déwén jéeg ja waa ji yàlla defari mbiram mu dem ba tukki ñëw di defal soxna Kine teraanga kon defal yàlla moo gën defal nit nañuy def te yàlla tax di dimbalante di jàppalante àddina amul solo te yàlla jaayut daraam euh, du loolu de sëñ bi yow xanaa xamoon ni sëñ bi déggoo li ma la wax tey imagineel tey nit koo xam ni dafa tëdd ci lal bi yàlla yegg si nga yegg si sa poos jeex nga fekk fa perkaal bu soxna xadi joxe waa ñu imagineel soxna xadi ñaan googu mu ca ñaan ci lu baax ca yàlla tax ak yonent bi Seydina Muhammad ñu jëfandikoo ko sëñ bi yàlla dina xam ko jëf lool de te defal yàlla moo gën defal nit tojal naa la ko ñaari yoon defal yàlla moo gën defal nit barke sëñ Fallou. defal yàlla moo gën defal doomu aadama. dëgg la euh, euh, euh, wàllu seet boobu waaw li ma wax rekk bu ñu delloo lépp suñu boroom jëf day rafet delloo lépp ci sa barkeb waajur jëf day rafet defin rafet di def lu baax te yàlla tax ndax yàlla moom lépp sëñ bi te yàlla jaayut dara man kay li ma wax dafa leer yàlla jaayut dara am te moom moom lépp lu waay yor walla nga am ko rekk suñu boroom ma la ko jox kon yàlla nañu yàlla xéer ci lu baax barke sëñ Tuubaa sëñ bi lépp xol la waaw waaw waaw waa parce que dama cee wax gëmuñu am na sax ñu ma gëm nag ndaxte daan naa ci daan naa ci wax te ñooñu daan naa jëflanteeg ñoom benn ca nguuru ñoom Salif Diao Milan bam ma fi woowee ñu amoon jafe-jafe ba ñu jëflantee may génne sarax yooyu ba dese ñeenti téeméer jox ko benn paa bi ma arrêté taxi ba ciy dugg la ma siidi Fall woo ni ma may nañ ñu 22 visa kon loolu sant suñu borom la ñaareel bi football yi paase dong woo nañ ma di ma laaj sarax mais la ma ca waxoon man gis naa ko xam naa ni am na senegal bu ñu bëggee football bii ñu ñëwaat nañu sarax néew di doole yi ak waay laago yi te gis na Sénégal gi sëñ bi sarax rek kay suñu mbir te lu way di saraxe de ci so soow suñu rawan ci ndox la né ah ci ndox bari na ci de señ bi ñu bax ñepp bokki heure te ñi bax ëpp ñu bon ñi bon lu way def ba boy def nak lu bon yalla dalay bayyi ngay def kan koy def mu di la sétane man nak soxna xadi jëm la jo xamni lu fi way di wursi si ci lu bax ñewal ci barkib serigne sa aajo dina faju waaye kuy wut lu bon it soril soxna xadi ndax soxna xadi deful lu bon ndax samay maam ba léegi de xamuñu lu bon barke sëñ Fallou. Mhm. xanaa man de gëm naa ni sax kilifa ñaan ñu ñaan kon nañu yok ñaan yi rek te ñaan yàlla defal ñu jàmm ci réew mi yàllaay boroom jàmm te gisuñu kon nañ ñaan senegal nañ ben bop lañ ño bok nday ño bok bay bala nga ko xam demal murtani señ bi senegal gi jàmm nga fi yal nañ yalla defal jam. adina amul solo te lenn lu ci ne rek fo tok fu ne ding fa jog sa morom tok fa tal ci lo ne lu ne di nga ko japp ba yag yalla jël ko jox ko kenen kon na rafet yal nañ yalla xir ci lu bax barki señ touba xanaa ñuy def lu baax rek di sarax tey jàppale nit ñi nañuy def lu baax rek tey saraxe lu waay def boppam nañuy def lu baax tey yéeneente jàmm tey génne sarax tey teete ndaw yi jàppale ndaw yi sus man ndaw ñi man ki ma gën a yërëm ci sama liggéey bii mooy ki nga xam ni dafa dem sëñ bi ba am situation am nattu liggéey nañu xiirante nañu ñaanante jàmm bi laay mag ñi fi jóge jàmm rek ci lañ nekkoon ak yéenante jàmm xool ko ci sëñ Saliou Mbacke jàmm rekk jàppale ndaw ñi ñi liggéey ba ami diplôme nañ leen dimbali jël leen waaye nga fekk jeexal nga teg ko fa mën naa ñàkk nañu jël ñi bëgg liggéey jël ndaw ñi jàppale leen ñu liggéey te génne mag ñi nga xam seeni kii jeex na waaw Mm-hmm. ba tay foofu touti ma wax touti ñu euh, mag ñi nag bu ma nee mag ñi Ablaye mom day sama papa di sama mam, di sama lip. mu def lu bax ci rew mi nak de nga ñu ñaan yalla nak yalla guddalat fanam barki seigne Touba yalla guddal fanu Ablaye wad lool bu ma nee yenn mag ablay Ablaye bok ci ndax Ablaye wad mag mu gon gonela Ablaye Wade dafa baax te jàmm la bëgg ci réew mi jàmm kese la fi bëgg seet gi nag ña ca bitim réew ku ma ci woo ñi ma dégg xam nañ ma muy ba Gabon ba France ba Espagne ba itali ba Amérique ba Canada ba Mauritanie ba marok ñépp xam nañ ma xam nañ soxna Xadi boo ma woowee distance sa turu waajur laa soxla ak sa tur soo ma woowaatee bu dee dëgg dina am man luñ ci bari sax benn nit laay xam mu boole maag téeméeri nit barki sëñ Saaliwu mhm. waaw am na ci koo xam ne daa joxoon jabaram sarax ni ko génneel ma sarax jabaram téléphone ba wul mu nan dafa sof sarax bu ma jox ma lek ko mu woma wax mako mané ko kon sarax bi defu ko gis nga señ bi mbir bu jaaré yon rek nang ko bëgg ko lepp sarax la sarax ak xol bu rafet lu manul amul ak jaamu yalla ak yenente jam barki señ touba faatiye lu manul amul ndox sax boko tanké jox nit budé deug rek yalla man na faj barki señ touba man nak day xoluma lu kenn man lima suñu borom man de japp na ni munuma suñu borom dama denk rek suñu borom rek ka man ki man kenn gisu na rafet rek mbir dal na rafet ak it genn ci internet di wax yo xam waxi safañ la man na talub dekk te señ bi luy talub dekk kenn duko def luy talub dekk kenn duko def ndax deug rek kay mujj fani ci internet bi lu na deg nañ ko ci lu ne dégg nañ ko ci ci wax sa moroomum jullit lu ñaaw di ko tëkku naan kii du doon lii yàlla rek ay def la nit doon ci moom yàllaay maye yàllaay xañe te yàlla ku mu xañ la gën ci yow rek la la jox waaye leneen lu gën dina ñëw sëñ bi benn càngaay bonul na rafet leen luñ la jox nga naan gisaguma barki sëñ tubaa am na lum def ca yow xaaral la ca des yàlla dalay bañ a sottee ndoo lépp te sëñ Fall moo ni woon toq toq gën yuréet barki sëñ saaliw Mm-hmm. dëgg la sarax ak muslaay ak cat ku mëcc ci bëtëg ak làmmiñ am li nga bëgg ndax tey secret boobu nga xam ne maa ngi koy def hôpital fànn dem naa ba nga xam ne maa ngi ciy jox nit secret boo xam ne tey bu ma la defalee sarax boobu ba jox la loo xam ne danga koy sangoo jëfandikoo ko cat lu nekkoon ci yow dina dem feebar bu nekkoon ci yow dina faxasu lu nekkoon ci yow dina deñ te loolu lépp ci secret boobu laa ko jëlee barki sëriñ Fallou. sëñ bi ku mucc ci cat làmmeñ mucc ci lépp sëñ bi ku mucc ci cat mucc ci làmmeñ mucc ci lépp lépp cat la cat raw liggéey. sëñ waaw cat raw liggéey sëñ bi am na ci ñoo xam ne cat boo seetloo seeni mbir lépp cat la liggéey leen jàpp leen yombul waaye cat kon sëñ bi cata garaaw leen lu ne mën nañ koo dind waaye cat garaaw.

17 47 waaw koo koy soxna xadi euh, li may tàggoo mooy di gërëmaat di santaat sama ñaari waajur di ñaan di wax askan wi lépp lu waay di def na doon dëgg ndax dëgg rekk ay mujj nañu yéenante jàmm boo xamee ni boo joxee nit loxo ni ko ak, ma àq te yegul ci sa xol bu ko def so xamee ni man de barki serigne fallu serigne bi yéenewu ken lu bon barki serigne saliw nañu yërëm ndaw ñi tette len ndax ndaway doon mak ëllëg ta mak bu ëllëgee na ñaanal ndaw ñaarel bi mak mo jitu xale ci adina te yal na nga guddi fani mak lu jara sakku la man day soxna xadi day joxat ñi ko mak cër ndaw ñi ma di leen tette di ñaanaat jàmm di ñaanal ñépp jàmm di ñaan yàlla musal ñu ci saytaane ak musiba ak balaa ñaareel bi li may tëje soxna xadi sosoon nañ fi benn mouvement boo xam mouvement jàppalante la international pour développement ak social ndax soxna xadi moom yàgg na ci social sama rakku papa mooy président dan bi man mi may présidente bi lépp nag ñu teg ko ci dimbali nit ñi jàppale nit ñi koy soxla xadi anda ak ñepp yene ñepp anda and ak bokkam limay tejj sante serigne touba rek santat la yow mi di len ñaanal jàmm kep ku bëgg jàmm daal yal na la ko yalla may kep ku bëggul jàmm yal na la yalla defal jam depp sa xol ñi nekk ci bërëbu musiba yoy nga xamni ku fa safaan duggal ci def lu bon yalla na la ci yalla genné te xiir ci lolu lu baax ñi febar nekk ci lalu hôpital yi yal na len yalla may wër yàlla def jàmm ci réew mi musal ñu ci seytaane may jaalewaat gendarme yooyu dem ndax dama cee am ndax sama benn càmmeñu gendarme bu nekk fii ci gendarmerie Foire mbokk ma nga ca ca ñett desit suñu mbokk lañ di ñaanaat ñooñu demoon Tamba ci élection yi yal nañ yàlla defal jàmm te yàlla may seeni mbokk xoli muñ ay waay yal yàlla may leen xoli muñ te yàlla yërëm leen te yeexañu ci barke Seydina Mohamed yal na yàlla di def jàmm ci réew mi